ginnaaw bi nga xamante corniche bi nga bi gis nañ fa mu espace commercial boo xamante ay restaurant lañ fay gis ay boîte de nuit ay discothèque mais gisuñu fa benn kër mais dafa am benn coow boo xamante dafa dox ci diggante ki nga xamante ni Omar Sey maanaam ak ki nga xamante Omar di président fédération li nga xamanteni moy Afrique jëm ci walu surf manam ñi nga xamanteni ne dañuy yor ay planche nek ci géej bi ki di Omar Sey mooy président ginnaaw loolu nak dafa am ben restaurant bu ñu Surfer Paradise ci biir loolu dafa am benn coowal suuf bu dox ci diggante ak moom kii nga xamante ni mooy général Mbengue lu waral loolu nag dafa doon benn espace boo xamante ni tey mi ngi toll ci cinq cent mètres carrés bi nga xamante ni benn source la indi diggante benn bras de fer boo xamante ni diggante kii nga xamante ni mooy propriétaire u lii di Surf Paradise di El Hadj Omar Sey ak kii nga xamante ni mooy Mouhamadou Mbengue ginnaaw loolu nag ku ci nekk ci ñoom mi ngi réclamé wu que moom mooy propriétaire u cinq cent mètres carrés yooyu ginnaaw bi nga xamante ni que lépp loo xamante ni appartenir na lii nga xamante ni mooy réellement lu ñu mën a wut daal di koy trouver maanaam mooy fan la dëgg bi féetee pour que ñu livrer li nga xamante ni mooy information bu baax bi ginnaaw coow loolu jóg na ñu def ko benn guerre interposée yóbbu ko ci wàllu média bi di jaayante doole ku ci nekk di xëpp sa moroom doole man lii laa man lee laa man am naa média bi mën naa ko jaare fa muy benn lopin boo xamante ni lopin suuf la boo xamante ni mu ngi situé foofu ca littoralu Almadi ginnaaw loolu nag suñu servir benn parking bo xamanteni parking automobile la nek fofu ci complexe surf paradise tollu ci cinq euh, mètres carrés depuis ay at nak gis nañu ben document bu authentique bo xamanteni accusé bi mi ngi koy exhorté ginnaw biñu respecter lepp lu jëm ci ay loi de règlement jëm suñu réew mi

pour user li nga xamanteni moy mooy subterfuge pour joxe lepp lo xamanteni semblant de droit la comme li nga xamanteni mo moo attesté di terrain 500 mètres carrés bobu nga xamanteni ni dafa situé wu ci ben zone géographique nek ci littoral bi ba nopi dal nek fofu ci Almadies muy ben capacité bo xamanteni suñ ko xaymaa tay mën na jël lu bëre ba tay li ñuy mën na xam daal terrain bi daal dafa def ben objet ben empiètement empiètement bobu nak lu ko injustifié jëm ci ben source bo xamanteni ni bras de fer la diggante ki nga xamanteni mon ligne du ñu Surfer Paradise de LH au Omar Sey ba président fédération africaine de ligue de surf ak ki nga xamante Mbeng terrain bobu def ko depuis atum 2007 loolu la kii en tout cas qui di Mouhamadou Mbeng terrain depuis atum 2007 la moom terrain bi Mbeng jamono jini, restaurant Surf Paradise de restaurant Surf Paradise kan moko mom moom El Hadj Omar Sey te ku nek xamna ni restaurant foog mu am parking bo xamanteni client bu ñew fofu ngay garer sa auto lolu dafa bok ci ay normes yo xamanteni suñ lay délivrer ben espace bo xamanteni yang koy def à utilisation commerciale bokkul ak à utilisation d'habitation utilisation d'habitation sax di nga am parking bu ndaw ndaw sa buntu kër ba nga am garage kon yakarna ni ki di Mouhamadou Meng nee mi ngi am attribution bi depuis atum 2007 muy loo xamante ni tey dañuy jàpp ni que benn manipulation la boo xamante ni tey Ngor Debout ñoom ñoo semblé nekk ci li nga xamante ni cause propriétaire bi nga xamante ni mooy Surf Paradise te Omar Sey, moom ko mu war a jàkkaarloog presse bi maanaam altine bii ñu génn muy 4 décembre ginnaaw bu muy dénoncé benn acharnement boo xamante ni ñu ngi koy def ci sitam ginnaaw loolu nag bailleur bi nga xamante ni yor complexe boobu mi ngi affirmer que signé na lépp loo xamante maanaam dafa sukkandiku ci ay kayit yoo xamante ni mën na justifier lii di entêtement pour mu occuper espace bi nga xamante ni ki koy réclamer du kenn ku dul monsieur Mouhamadou mbeng di général. kon donc je crois que loolu ñuy bëgg a attendre tey xam ko ci ay preuves mën na comprendre lépp loo xamante ni tey suñu sukkandikoo ci ay base yi nga xamante ni kii di Mouhamadou mbeng bi di revendiquer li nga xamanteni moy propriété terre bobu di 500 mètres carrés té ki nga xamanteni moy Surf Paradise bëgg ko def li nga xamanteni moy parking parkingu li nga xamanteni moy espace bobu nga xamanteni espace commercial la restaurant mo fa nek surf lañ fay def donc mohamedou meng dafa bëgg réclamer ci kanam bobu pour que mom mom moom 500 mètres carrés yooyu daf ko bëgg tabax loolu nak mo indi coowam digganteem ak ki nga xamanteni moy Omar Sey mi mom restaurant Surf Paradise nek fa depuis atum 2012 ñu ko fa gis mi exercer.

muy benn permis d'occuper bi nga xamante ko en 2011 ci ginnaaw papier boobu nag ñi ngi xamal que arrêté ministériel boo xamante dafa daté en février 2022 bi nga xamanteni da fay stipuler que lepp luy foncier bo xamanteni mi ngi ci turu ki nga xamanteni moy Mohamedou Mbeng muy ki nga xamanteni moy papam d'après lolu ki nga xamanteni moy euh, Omar Sey mi ngi xamal ni ka dal mom mi mom complexe boobu dafa servir ben terrain bo xamanteni ni daf ci installer depuis très longtemps ben parking bo xamanteni ni fofu la ay clientam di garer sen auto waye li am solo ci wax joji rep moy li may wax rek ñun fi actu du jour c'est s'informer juste et vrai lepp lu ñuy wax rek dañ ko tek ci ay preuves indi loo xamante ni maanaam lu leer nañ la ba nga xamante ni ku ci nekk da ciy sukkandiku waaye nag comme ni ma koy waxee wax su wéree nopp yi koy dégg war a wér wax su feebaree nopp yi koy dégg war a aussi wér. kon dañu bëgg a sukkandiku ci terrain bi nga xamante ni tey am nañu bépp preuve boo xamante ni kii di Omar Sey bi moom Surf Paradise moom moo ko occupé légalement. kon muy Omar Sey borom restaurant Surf Paradise du président fédération africaine de surf en tout cas moom moom restaurant bobu mu attribué ko ko mu jaarale ko ci yoon lii nga xamante ni mairie de Ngor attribué ko parcelle Bobu yagna ñu def ko ci touram ba nopi mu daldi di ci lepp lo xamanteni dafa jëm pour réglementation li jëm ci terrain bobu nga xamanteni mom moko wara occuper occupé def ko usage commercial muy élément yoy ngeen di gis muy papier yoy ngeen di gis ben par ben yéen a ngi koy gis nee len VIP People TV Ken du wax te teguñu preuve donc je crois que document yaangi nonu ngeen di gis nañu xoli document yi dellu

kon yaakaar naa ni ñoo gisandoo document yooyu nga xamante ne tey moo approuvé daal di prouvé ni que que kii di Omar Seye nekk ca restaurant Surf Paradise dafa occupé légalement lii nga xamante ni mooy terrain boobu nga xamante ni dañ ko ko attribué muy commune Ngor bi nga xamante ni ñoom ñooy saytu moom li nekk foofu. ginnaaw bi ñu ko joxee kayitam yépp moom ci boppam dafa dem ba impôt et domaine bu Ngor. fay lepp lo xamanteni mom mo wara viabiliser li nga xamanteni moy occupation bu légal mu tek ko ci yoon di occuper fofu di fa def espace commercial am ba nopi dal di créer ay emploi ay jeunes di fa liggéey mu len di fay salaire kon yaakaar naa ni lolu dafa leer nañ waye bañu ñu jékki-jékkee gis ki nga xamanteni moy mohammedou mbeng ñew indi li nga xamanteni moy document bi ngeen di gis ni je crois que yéen a koy gis bu baax moy document mohammedou mbeng bi yéen a koy gis ni bu baaxa baax tay ba suñu sukkandikoo ci document bi nga xamanteni moy mohamedou Mbeng muy autorisation bi nga xamanteni tay ki di monsieur mohamedou Mbeng pour mu occuper ben titre bo xamanteni bu précaire la jëm ci révocable ci terrain bi nga xamanteni domaine public moko ak maritime jëm ci formation bi di lot numéro 20 situé foofu ci ben superficie bu 500 mètres carrés pour usage d'habitation kon yaakaar ministre des finances et du budget Pour lañ ko titré moy constitution bi nga loi 76 66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État modifie la loi numéro 2011-7 du 30 mars 2011 portant régime sur la propriété foncière Madame du décret numéro 2010-399 en date du 23 mars 2010 fixant le taux de recevabilité occupation temporaire du domaine public ba opinion décret 2020 2098 du 1er novembre 2020 portant nomination des ministres secrétaire d'État fixant la composition du gouvernement, le décret 2020 2100 du 1er novembre 2020, l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et générales du gouvernement et général du gouvernement et les ministres muy décret Binga nga numéro 2020 21 93 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du ministre des Finances et du Budget muy benn avis favorable de la commission de contrôle des opérations de domaine au cours de la séance du 20 mai 2011 suñu xoolee ci note bi nga xamante ni directeur général des impôts et des domaines alerte Noko, ko kii nga xamante ni mooy Mouhamadou Mbeng kon yaakaar naa ni ci biir loolu lii di DSCOS bi nga xamante ni ñoom ñooy statut wu jëm ci lépp loo xamante ni dafa war a réglementer ay terrain ñoom ci seen bopp convoqué woon nañu kii nga xamante ni Omar Sey kañ la ñu Omar Sey muy convocation bi ngeen di gis bi ñuy Omar Sey convocation bi tey mi ngi nii mi ngi daté le 18 août 2020 18 août 2020 acte je crois que c'est de euh, ñetti at la kon yaakaar ni ci biir lolu bagn ko convoqué qui ko convoqué nii par mesure de présence euh, de sécurité et de données à caractère personnel damay demander régie ñu masquel ma numéro téléphone bii nga xamante ne mi ngi affiché wu ci suuf suñ koy dugal ñu bañ ko génnee ñi ngi convoqué Omar Seye bañ ko convoqué ba pare xamal ni ko dafa nekk ci ay droit am mais dañu dem ba jamono toll fii nga xamante ne mooy atum 2023 kii di Omar Seye ñu bëgg ko jaay doole nangu parking am boobu pour tabax ko kan moo ko bëgg a jaay doole mooy kii nga xamante ni mooy Mouhamadou Mbeng Mouhamadou Mbeng nag ci kooru armée la bokk général la xaw ma capitaine capitaine la xawma ma lier naa la xawma ma lu mu mën doon ni ma koy waxe rek senegal la ju nek injustice amu fi nul n'est au-dessus de la loi nul n'est au-dessus de la du senegal li am solo moy ku nek da ngay tegu ci yoon yoon jox la li nga moom ku nek da ngay wàcc yoon. yoon wàccee la li nga moom kon yaakaar naa ni tey jaay doole waruñoo ko toll fii ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex mu indi fi benn instabilité suñu biir réew kon yaakaar naa ni tey kii yor restaurant wax dëgg yàlla war na am parking bu mu gaaree ay otoom nit nag mënul jógee fële ne dafay jël cinq cent mètres carrés yi pour tabax fa lieu d'habitation maanaam kër la wax la fay tabax image leen ki nga xamante ni dañ joxe benn littoral ci décret président de la république Macky Sall mo interdire kep pour ko xamanteni ni da ngay tabaxati ci littoral bi ken dootu fa tabax keur Macky Sall moko wax. pour jox len firnde kii di président de la république Macky Sall nek chef suprême de la nation amna fa ay terrain fi nga xamanteni Mohamedou Mouhamadou Mbengue mi ngi koy réclamer muy 500 mètres carrés té Macky Sall tabaxul ay këram daf ko mujj maye ñu def ko usage commercial. kon tey kii di Mouhamadou Mbengue su ñëwee bëgg jël parking ci buntu restaurant ne dafay tabax kër ba noppi naan Umar Sey naa la fi bàyyil benn yoon bu ndaw boo xamante ne say nit foofu la ñuy jaar je crois que loolu foog ñu seetaat ko fan la dëgg féetee képp koo xamante ni jaar nga ci littoral bi maanaam ci ginnaaw Almadi bi loge corniche bi foofu yëpp xam nga ni foofu yëpp ay restaurant ñoo fa nekk maanaam ay boîte ay lieux la yoo c'est commercial lieux ay jeunes sénégalais ñoom ñoo fa participer au développement économique et créer de l'emploi pour la jeunesse kon je crois que tey su soutenir Omar Seye la soutenir bi nga xamante ni mi ngi yokk xëy mi ngi chômage bi ba di créer emploi di participer encore ci intérêt économique Sénégal en payant des impôts en payant des taxes en achetant aussi des fournitures ci Sénégal kon il y a des DSCOS qui sont tey gendarmerie la ñu gis que qui di Mouhamadou Mbeng, amaanaam dafa bokk ci

Sénégal nag nekkul ni ko damaa am doole général la capitaine la wala lieutenant la lu waay waay waay am doole am na lu ko ëpp doole muy dëgg dëgg boobu kenn ma ko moom muy yàlla subhanahu wa taala nañu jël lépp di ko teg ci dëgg pour ëllëg ak ci biir moo tax amul nag koo xamante ni mbindeef yàcc nga ci biir suuf. nga war a yëkkati benn injustice wala abus de pouvoir ngir sa sañ-sañ bi nga am pour nga jaayee ko doole nit koo xamante ni peut-être amul doole loolu yàlla bugg ko yonent bugg ko islam bugg ko te suñu bëggee am benn république boo xamante ni dafa tëkku ci ay charte maanaam jëm ci démocratie jëm ci transparence jëm ci indépendance de la justice ku ci nekk da ngay respecter sa règlement kon yaakaar naa ni document yaa ngi noonu fan yii yëpp yéen a ngi gis benn ay article yu circulé wu ci presse bi jógee ci favoru kii nga xamante ne mooy Mouhamadou Mbengue maanaam nit ki soo nekkee ci dëgg nekk ci yoon demal nga présente ji say këyit mais doo ko def benn porte presse pourquoi cette porte presse parce que am na luy ñuul ci soow li lan mooy ñuul ci soow li maanaam jaay doole la intimidation la porte presse la attirer attention nit ñi la pour foqati li nga xamante ni kii di Omar Seye moom moo ko moom muy parking bi nga xamante ni moo abrité lii di Surfer Paradise pour que kii nga xamante ni mooy général Mouhamadou Mbengue war ko utilisé pour 500 mètres carrés même sous le général Mohamedou Mbengue Momoko Mom, mais mun utilisé à usage d'habitation parce que président de la République doit interdire toute construction sur la corniche président Amnafa a été ay construire lu ko ko utiliser à usage commercial pour que yokk xeyu ndaw yi en tout cas muy lumière bi nga xamanteni indil nañ leen ko ci litige foncier bi nga xamanteni ni moo dox ci diggante qui nga xamanteni ni mooy Omar sey di propriétaire lii di Surfer Paradise ak ki nga xamanteni le général xawma le colonel Mouhamadou Mbeng muy 500 mètres carrés yi nga xamanteni ni moo abrité lii di parking restaurant Surfer Paradise qui di Mouhamadou Mbeng bëgg ko nangu ci ki nga xamanteni ni mooy Omar sey pour ko jaay ko doole wala wan ni ko man dama am benn puissance ci armée bi je crois que loolu waratul dox Sénégal kenn waru ko nangu ak fi ñu toll loi il faut que les sénégalais commencent à comprendre que nul n'est au-dessus de la loi et le Sénégal est au-dessus de tout le monde ku ci que respecté li parce que qui Mohamed Mohamed Mbengue yoree ay kayitam non la Omar Sey y ay kayitam lan Omar Sey a un privilège pour garder le parking parce que le président de la République Momo décret interdit toute construction sur le littoral kon tey Mouhamadou Mbengue su ko def espace commercial sax ñu waouh, parce que faut créer pour ay emploi mais qui dit créer emploi nga ne da nga koy xañ employé bi yooyu yëpp maanaam buntu restaurant du parking est-ce que oto bu ñëw dafay garer ci diggu tali bi est-ce que loolu tey du anarchie tey su demee ba ci biir maanaam euh, business am doxatul lan lay def wàññi ay employé am su wàññee employé am ñooñu lu ñuy def maanaam day yokk chômage bi ci biir réew mi je crois que tey ñu jàppale ki nga xamante ni dafay contribuer maanaam ci développement économique du Sénégal à réduire le chômage ak ki nga xamante ni daf koy tabax benn kër boo xamante ni moom ak njabootam kese ñoo fay dëkk à plus forte raison qu'on a interdit toute construction d'habitation maanaam muy kër bi ngay dëkk foofu ca littoral ba muy li nga xamante indi indil loolu nañ ko comme éclaircissement ci li nga xamante ni moo dox ci diggante kii di Omar surfer paradise ak kii di Mohamed Mbengue ci terrain bobu nga xamanteni moy 500 mètres carrés nek fofu ca littoralu Almadi à vous de juger.